waaw booy bi dafa jógee Touba euh, indi doomam wàcc fii si gaz Nioro fekk jaay toog mu yor ñaar mu yor saagam ak benn mbuus téye xale bi bu mu téye xale bi léegi ñëw fekk ñu toog mu dénk leen saag bi ak mbuus bi na leen ma leen ma dem seeti fii te seetal leen sama bagage bi ma dem seeti fii sama benn mbokk léegi bu mu ñëwee dugg biir si biir koñ bi sànni xale bi ci biir foos bi bu mu sànnee xale bi ci biir foos bi daal di retourné ñëw waaw bu mu ñëwee fekk ñu mu jënkoon saag bi mu ñëwaat récupéré saag bi kenn ki ne ko yow taxawal soxna si yow taxawal euh, ndax bu ngay jóge fii yow yaa ngi téye benn xale ana xale bi mu ne ko man ak xalé mu ne ko yaangi ngi teewoon mu arsalé ko gaayam bi mu arsalé gaayam bi auto bu mu duggoon pour dem dekkam auto bu mu pour dem dekkam ci la sefer ne yow ke ne apprendre bi yow ke ngay kee di ndax du sa client mu ne ko sey client bi la gañ boy bu mu ñëwee xool mu ne ko añ kañ yow bu nga wàccee ci auto bi sank yaangi ben xalé ana xalé bi boy bi daldi daw yu xugaay ko ko ko ci leen ni taxaw ñu dugal ko ci benn kër bu ñu ko dugalee ci kër gi di ko enquête ci la wax fu mu sànni xale mu ne mu ngi ko sànni ci biir koñ ba ci booru ngénte benn ngénte bu fa amoon exactement ñu woo police police bu mu ñëwee ñu def enquête booy yóbbu nañu ba foofu boo waxee mu ne xamatul fu mu sànni xale bi ndax boobu mu ngi dugal xale bi ci fa lañ ak bu trois heures du matin mais gisuñ xale bi xale bi def fa samedi dimanche lundi mardi ci suba mardi ci suba lañ gis xale bi benn maire moo doon sangu di ngàcc fo ne foos bi fees mu ne xaaral ma ngàcc foos bi bu mu foos bi nag ci la gis xale bi daal di yuuxu daw ci lañ woo police ak sappo ñu ñëw jël si ko bu ñëwee nag exactement mu nekk xale bi. léegi na si nag far nañ ko téye police